dañuy recevoir euh, suñu euh, beneen euh, invité alors dafa am lu tudd suñu cosaan ñi ko fi indi di ay xale yoo xam ne dañu am jom nekk ca bitim réew di Youth Develop mm, mm. Develop Development Agency ah. <laughs> allez Mame Diarra Diop va nous rejoindre tout de suite you can venir sur le plateau comme ça <laughs> all the people va discuter with you it's a uh, program. It's a morning show. Yeah. <laughs> yeah. How do you feel? I'm fine. How do you feel? Welcome to venir ici uh, for to speak uh, uh, for your événement. <laughs> waaw et pourtant dégg naa wolof. man ngay waxal li nga wax nga dégg li nga dégg ci wolof sax dafa garaaw ah. <laughs> naka mu. xam nga li nga def la bu doon karaw la Mireille lañ koy tuddee. Mireille ah ok waaye rasta yi nga Mireille nii. waaw ah sama cosaan la moo tax. <laughs> naka ma ñëw ñëw sama man dara maa leen di remercier kontaan naa si ñëw euh, nag kontaan naa trop bëgg nga bëgg naa alors euh, wax ñu ci sa événement bi euh, suñu cosaan ok en fait euh, Sunu Cosaan benn programme ñoo ngi ko dalu commencé depuis 2012. Mhm. Euh, New York la basé. Mhm. te euh, bi nga xamante ni dañuy def dañuy ñëw fii chaque année. Mhm. di def benn collaboration. waaw chaque chaque year. chaque year di def benn collaboration avec benn école moo ngi tudd de Senegalese American Bilingual School bi nekk Bourguiba. ak Point E. léegi nag dañuy def benn corps de vacances. te ci bu ñu paree pour quatre semaines. dañuy def benn spectacle bu mag. Daniel Sorano. fii foofu. Daniel Sorano. Sorano dafa am fii Sénégal. eh Sorano la nga ma koy waxee Sorano. Sorano Sorano. ñun jëlee ni Sorano la ñu wax. man géwal laa. maa la gën a nekk géwal. ah déedéet foo bokk. man ah. man ah xam nga bette géwal bette bette. ah géwél ba te ba te waaw kon sa maam sama maam ah. mooy dema birama pam mbaay samba loo bu essa njëkk ma passa taxaw ndaw oh, ma <laughs> waaw mais <laughs> yow dama lay invité chaque semaine yow la. Ah. nga ni yaay kan. Ah. man. Ah. xaaral ma xaaral ma wax <laughs> sama événement ba pare parce que 10 heures léegi ñu jot <laughs> euh, affaire bi nag euh, le le 2 septembre la. ci Kaan. ci euh, mm-hmm. Daniel Sarano. ok te affaire bi ci affaire hip hop la ñuy def. culture mm. urbaine ñoo ngi honoriser hip hop yi ñi nga xamante ni ñoo influence hip hop edutainment la. ok edutainment mooy éducation sur. art. ok à travers jàngale jaarale ko waaw di jàng waaw. te xale yi nag euh, ñoo ngi noonu te euh, ñoo ngi lu ci spectacle bi bàyyi ñëpp di nga ñëw invité naa leen. amul problème macha allah. <laughs> nit ñi bu bëggee ñëw naka la ñuy def est-ce que dafa am benn billet bu ñuy jënd. waaw invitation la. Um, pour dugg 2000 euh, la. Mhm. mais avant 1000 francs la. prévente 1000 francs. oui ah, prévente fan lañ ko moom dee jënd nga avant. téléphone. par téléphone ah. oui. Hmm. ok donc annonce bi mu ngi ci kii bi fan fan la ñu mën a amee billet yi. Ah, mën nga ñëw ci euh, école bi. ci école ah, wala mën nga mën nga ñëw si sunu ah, website www dot sunu cosaan dot org. Mhm. mais ñëwaleen si sunu école bu SABS the Senegalese American Bilingual School point 1. Mhm. léegi foofu la ñuy amee béy bi. d'accord donc événement bi euh, euh, date la ñuy wax ah date bi kañ la fàttali ñu ko. le 2 septembre. le 2 septembre. ban à 18h. 18h oui. d'accord donc hip hop ak culture urbaine. waaw lépp euh, jaarale ko ci jàng bi. waaw ay graffiti euh, break dancing loolu yëpp lu tax euh, hip hop tax a jóg. ok alors d'ailleurs am nañu annonce bi xool leen ko comme ça ngeen mën cee bàyyi xel en attendant l'événement regardez. Sunu Cosaan en collaboration avec l'école bilingue sénégalo-américaine SAPS présente le septembre au Théâtre national Daniel Sorano le show du hip-hop opéra. Le show hip-hop opéra Hip Hop is Culture, une pièce de théâtre qui honore la culture urbaine et ses pionniers. Hi everybody, let's celebrate hip hop pioneers. Canada's hip hop opera 2 septembre Sorano Theatre. Please do not miss it. Celebrating Watch it.

sunu cosaan Youth Development Agency notre origine notre héritage. C'est vrai que c'est euh, euh magnifique comme disait l'autre ah n'est-ce euh, pas. il euh, y avait une animatrice qui faisait ça. magnifique <laughs> donc événement bi le deux la ah. oui jeex na ñun ñëpp dinañu ah, la doo ko fan fan lañ koy amalee fan la affaire <laughs> maam foo bokk. ma waxaat ko waxaatal ma xool. dama a Pam Mbaye Samba Lobe Essa Ndiaye dama ba sa caxaw ndaw maa Samba Binam Ndiaye ba sa Touba ba kër maam Samba ku ma kenn ku ma ngaay. <laughs> neex na. kii kii kii ndaanaan la. <laughs> xanaa gëm ngeen. voilà alors à la confiture euh, euh, pare na euh, je sais que. gis naa la ngay def ay rondelle ay modèle ak euh, pat bi tu l'as bien modélé. léegi Pape Cheikh dañu dër suñu pat rek. comme comme ni ma la ko waxee sànq. Mhm, mhm. jël suñu ay forme yi ñu am ah. ok am nañ def nañ. étoile mën nga ko am fu ne. mën nañ ko am fu ne. d'accord étoile emporte pièce rek. léegi dañ ko découper def ko uh-huh. par yenn yi dañ ko bàyyi noonu ni mu mel. Uh-huh. yeneen ñu def ci trou. ok bën bën quoi. bën bën waaw. d'accord léegi sunu bu bu mu génnee ci fuur bi yi am bën bën yi. moom mhm. la ñuy def sunu sucre glace bi. ah dañ ko ci wis. moom la ñuy def sucre glace bi. ok. wis ko ci kaw. léegi yi koy accompagner yi nga xam ne amuñu bën bën moom la ñu nappee sunu confiture. d'accord yi amul bën bën comme yi moom lañ jël confiture bi rek. raax ci moom lañ jël sunu confiture ci. Uh-huh. donc dañuy jël bu nekk kubéeram euh, teg ko ci bi amul. trou bi. Ah, maanaam cercle yi waaw ñooy wuy si cercle sa comme ça. ok c'est un peu. Mhm. ça finit comme ça étoile yi dem ci kaw. étoile yi uh-huh. donc c'est c'est simple ah Pape Cheikh nii rek la nañ koy defee. ok i faut juste rappeler que ça ça se vend ça se vend partout. ça se vend partout bu pièce rek mën nañu ko am. emporte-pièce la tudd. d'accord on peut l'avoir partout. donc kër bi mu ñëw fekk bi. kër yi ci kër yi. parce que dafa am yoo xam ne dafa am trou ak yu amul trou. waaw dañuy dañ fait dañ ko def par couple. benn bi benn kii bi mën nañ ci def trou benn. Euh, donc bi am bën bën bi ngay teg ci bi am bën bën ci kaw bi amul bën bën. toujours mooy ñëw tegu ci bi amul. bën bën mhm. donc confiture bi di feeñ ci bën bën bi. Pape Cheikh sucre glace bi ñu def ko ci kaw. Uh-huh. donc moo ñu jox sunu sablé. à la confiture à la confiture par voilà merci bon appétit on vous montre encore recette bi naka la ñu koy defaree Alfie on regarde en même temps ci image bi euh, comme ça nga wax ñu pour defar euh, sablé à la confiture. qu'est-ce qu'il farine blanche. 100 grammes sucre en poudre. 50 grammes amande en poudre. benn sachet sucre vanille. 100 grammes beurre. ak benn nen Pape ak benn nen. voilà donc suñu sablé à la confiture euh, pare na bu ñu neexee ñu lekk ko euh, dalal suñu xel. merci. on te retrouve demain. demain incha allah. fajar profiter remercier. Uh-huh. la maman maman Zeyna. maman Zeyna bi ma defaral ah oui ah. robe bi gisuñu ko baax sax ah. mais euh, waaw mi ngi <laughs> aussi Ndeye Koumba ci coiffure. pas cher la Ndeye Koumba. Ndeye Koumba fa nga yendu dégg naa ah. waaw foofu la ñuy yendu dem pas cher pour pour defar sa pour ah. defar rek. waa ñu ngi suñu ouverture. waaw ah, quand même <laughs> merci à Alfie. merci on te retrouve donc demain pour la cuisine tey ñu proposer leen li nga xam la on va euh, sur le euh, plateau ayta way ah, euh, yoo xam ne mën nañu ko ànd presque au terme de l'émission euh, normalement dix heures dafay jot léegi nii ñu àndandoo ak Léa pour le journal mais en attendant bu amee ku nekk ci téléphone bi ñu jël ko 88 628 65 65 wala 88 628 04 05 wala 88 628 22 22 allo allo allo. allo. oui. oui Pape Cheikh. kooku kan la. Eh, kii de Cheikh lañ koy wax. ci loo ne. Masal Masal waa kay jàmm Cheikh. maa ngi ci jàmm. naka suba si fooy wootee. maa ngi wootee Fass naka waa Fass Mbao. ay ñu ngi ci jàmm di leen seetaan di leen déggee. jaajëf ñun kontaan nañu. ñoo leen gën a kontaan. yaa ngi déggee. maa ngi déggee. alors tey ban heure nga yeewu. Euh, tey cinq heures laay. cinq heures du matin di xaar yeewu leen. di xaar yeewu leen. <laughs> da ngay liggéey wala liggéeyuloo Cheikh. Euh, damay liggéey ku ma rek instant yi ok boo liggéeyoon boo wax ma sa salaire ma mën laa doubler sa salaire mais grawul alors foofu nga nekk Fass Mbao yaa ngi yaa ngi noonu toog rek euh, boo xëyee seetaan yeewu leen pare toog di xoole wala. waaw mais nag maa ngi def ay demande quand yaa ngi ay demande ay demande waaw yónneel euh, yónneel Kia sa euh, euh, demande demain mun na ko jàllale comme ça ku la soxla jël la pour nga liggéeyal ko dégg amul benn problème tam di xoolee baaxul de. <laughs> soxla bu teew ay nelaw faju ko de. faju ko. lu leer laa la wax de. dégg naa fi ngay waxee. you must job. you know. <laughs> every time you you must job only job yeah. you know what I I know what do job. <laughs> yeah. <laughs> by, force, you must job. Yes. That's <laughs> You must work. I speak English very crazy. what do you say? A little what? Bit ah, speak a little? Yes. Uh, a little uh, slowly, slowly, slowly, on ah. small, <laughs> small, small mooy tuuti non. can I say smally? no. ok <laughs> uh, little mooy mooy mooy dëgg bi. a little. you don't lie. kon wax nga uh, so so you know uh, Cheikh. yes. Bijou is rich. Eh. rich you know rich. <laughs> You know witch? No, witch, witch. You know ah, witch. witch sorcière. What the witch? That's true. You, do you know witch? <laughs> No, Okay, you, have fait anglais de troisième secondaire, hein? <laughs> Nous on a fait de université. On blague. Écoute, non seulement kontaan nañu ñu ngi lay ñaanal pour nga am liggéey lan ngay liggéey sax yow. Euh, technicien la en électromécanique. technicien en mécanique Mhm. e écoute certainement on ne sait jamais ah am na ñu soxla technicien en électromécanique est-ce que ton numéro de téléphone pour que la soxla peut-être mu contacter la nga am liggéey au moins profites-en. bien sûr. mais donne ton numéro de téléphone. 77. 77. 512. 512. 57. 57. 02. 02 te mën nga liggéeyu euh, électro élect élect quoi hmm. électromécanique. électromécanique d'accord ok bonne chance écoute en attendant euh, dañu lay may xaalis ah <laughs> xam nga ndox du bàyyi yoon yow leen may na la 25000 cheikh. ah loolu neex na ma trop. yaa ko mooma def ko sa poche waaye bu jeexee nag <laughs> boo liggéeyul doo ko amaat <laughs> de ah. voilà donc mun nga bañ a raccrocher comme ça ñu jëlaat numéro bi ci suuf et puis mën la yónnee xaalis bi nu mu gënee gaaw grâce ak Crédit Solidaire Afrique dégg nga. amul benn problème. thank you so much have a nice uh, have a nice day. thank you thank you very much. ok thank euh, damaa bëggoon nga understand li may expliquer moo tax ma doon làkk anglais. so man I speak English very well. ah nga mm-hmm. ok euh, mais kontaan naa ci yow. non man maa ngi leen di remercier. bete bete bi maa ngi bete bete bi. nday géwél bàyyi géwél. waaw nga ni kuy sama mbàkkaatal ma xool <laughs> demal. <laughs> dinaa ko wax boo ñëwee si Sorano. waxal ma ko léegi nag waxal ma ko doo ñëw sama émission ma may la promotion Sorano te dama waxaatal sa maam waxal kuy sa maam. dama Birama Pape Mbaye Samba ba sa sama bina Ndiaye ba sa Touba ba kër maam Samba Kumba kenn Kumba Gaaw. Eh waay teg naa ci ñaari junni <laughs> waaw damaa kontaan waaye yi laa bëgg ah. <laughs> ok donc donc le deux parce que ñu fi nekk ñëpp xamuñu seen maama ah, yow kan mooy sa maama. Ah? kan mooy sa maama. ban côté a neex lii lii neex kii moom bëgg naa ngeen faawal ma ko ngir yàlla. créé leen ma ko ay fan sa club Sénégal ngeen bëgg ko mu nekk loolu laa bëgg daal dafa neex lii nar a neex uy lii alors Absa kan mooy sa maama. sama maam Jatu Ba. ah Jatu Ba. Jatu mën a nekk sa maama. d'accord ok. tu peux pas faire comme elle comme elle a fait réciter Mamori Biram xaw ma yi rek ñoo ko mën a mais yow euh, jatu ba rek nga xam ci say maam. mooy sama maam. d'accord comment elle s'appelle ta grand-mère ah. jatu ba jatu ba ah. <laughs> kii ah moom moom bambara la moom. non man Aïdara laa sant donc sama maam je pense que. soxla tout le monde tout le monde connaît sa maam. voilà exactement Aïdara ah, donc tout le monde connaît connaît maamam voilà euh, yonent bu sedd bi sallallahu alayhi wa sallam mooy maamam merci. merci maa ngi leen di remercier yéen ñëpp tey incha allah. waaw bu la deux. voilà on viendra. ok merci ma yóbbu sama palaat. du <laughs> ko may du ko may. non non